moom laay wax ci yeewi askan wi laay yeggale ñun dañu nekk ànd saxal liggéey dafa bokk ci ñu sos yeewi askan wi mu jaral ñu lu nekk nag lim ñu jaral moo tax luñ ci naqari kenn du ko dégg man mësuma leen a convoqué ni leen kaay leen ma wax leen difficulté bi ma am yeewi askan wi pourtant am naa ko de mësuma leen woo ne leen lii moom a naqari ci yeewi askan wi xanaa takku ba dëgër ku tudd yeewi askan wi mën la du fi amee mais yeewi askan wi dafa am xol wax naa ko léegi dafa am champion dafa am locomotive ku ko tudd jàppal ne yeewi askan wi yëpp nga tudd doori ñëw ci askan wi dinaa ci ñëw yeewi askan woowu nag dañoo defoon suñu protocole d'accord ni bu nu demee ba élection locale yi élection locale yi suñ ca demee na ñëpp àndandoo ñu dem c'était une question de stratégie stratégiquement loolu moo gën parce que raw gàddu la ñu ni bu ñu demee ba législative nañu àndandoo def benn liste ñu ni waaye présidentielle yi nag jàkk jaa ngi noonu ku mën a nodd na nodd loolu la ñu wax ci yeewi askan ñu ni waaye waaye nañu garder esprit yeewi askan wi de amul benn accointance ak ki fi nekk parce que suñu première priorité mooy na fi jóge te du bokk na fi jóge loolu bu yàgg lañ ko wax ba ñuy ba ñuy nañu ni moom loolu mooy suñu objectif premier objectif bi mooy na fi jóge donc amul kenn ku jóge ci yeewi askan wi kuy dem di jotee ak moom dara kon lu fa dialogue di wuti fu sàcc nekk lu fa yóbbu turam kon kay dialogue amu fi yoon surtout nag à dix mois moom waxul ak ñun waxul ak ñun am na jamono boo xam ne mën na am bëggoon nañu wax ak moom mais mayuñu ko bëggoon nañu mu teg ñu nawle bëggoon nañu lii suñu droit mu jox ñu ko ay nit di acharné wu ci ñoom yeewi askan wi ni loolu du am benn compromission bëgguñu ko nañu nekk ci suñu ligne li ñu yeewi askan wi mooy opposition bi li ñu yeewi askan wi mooy doone nii laa mel ba pare bu ëllëgee nga def leneen loolu lañ wax ci yeewi askan wi beneen bi ñu ni bu ñu demee bay dem élection bu kenn wax kenn ku bokk yeewi askan bul ko wax lu ko naqari nañu respectente pour ki nga xam ne mooy génn mu respecté loolu su fekkee ni bëgg na ñu nekk ci yeewi askan wi yépp soutenir ko au deuxième tour na def loolu parce que candidat yeewi askan wi génn au deuxième tour moom la ñuy jàppale loolu moom lay fàttali ci protocole d'accord kon su fekkee ni loolu def nañ ko yaakaar naa ni dañuy leeral rek pour wane ni ku nekk yeewi askan wi mënul soutenir dialogue non non mënul soutenir dialogue